yi compagnie Serigne Seck Sénégal C3S moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butigu c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di jagleel ko région yi di Matam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépôt la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. xam ne moo la war sa digganteeg sa borom la ndax da war a bàyyi xel amut keneen ku lay contrôler wala ku lay bàyyi ku lay ku lay seet ci li ngay def ku du suñ borom kon da nga yëg ni kon ne kenn ku nekk da yëg ne responsabilité moom ci moom ci moom la tegu amut kenn ku koy bàyyi xel ku du suñ borom tey bu fekkoon ne dafa yem suñ borom dafa yem rek ci xam-xamu boppam waaye ngir bëgg seera ci lépp lu lu mu seq doomu aadama tax na ba mu bàyyi mu yónni ay moom andi ay malaayika yoo xam ne ñu ngi nekk ñii ngi ci kii ngi suñ mbéggum ndeyjoor kii nekk suñ mbéggum càmmooñ lépp loo xam ne def nañ ko ak nu mu mën a de ak nu mu mën a demee loola dana ko bind moom malaayika bi moomee te bu ëllëgee dana taxaw ci suñu borom kanam suñu borom leeral ko ci loolee ñu defoon ndax na na defe nañ ko nañ ko war a defee wala defuwuñ ko nañ ko war a defee doon na diine joo xam ne itam bàyyi na xel ci ne mboole bi yonent yi suñu borom yónni yépp ku di koo xam ne da ngaa nekk di daa nekk ci lislaam da ngaa war a nangu ne yonent yooyee suñ borom moo leen yónni gëm ni itam la ñu andi woon suñ borom moo leen ko joxoon bu fekkee ne daray taqale daray daray jax doomi aadama duggaatu ca wala leneen lu ak soppi duggaatu ca da ngaa war a gëm ne loolee suñ borom moo ko wàcce ni mu ko wàccee dislaam nag ñaari juróomi juróomi ponk la yor xam nañ ne dara boo bëggee tabax dara lu mën a doon faaw da nga koy wural ay wutal wutal fondement waaye fondement boobee nag du tekki ne mooy diine jë kese ndax bu fekkoon ne fondement yi muy juróomi ponk yi nga xam ne moom lislaam mooy mooy xam ne kenn ku ne xam ne ne fondement doonut loo xam ne mën nga faa loo doonut loo xam ne mën nga faa suturloo bu fekkee ne ay ay ay fondement kese ñoo taxaw waaye faaw nag day am loo xam ne bi fondement yi taxawee am na lu koy tabax wala am na lu koy rafetal ba tax nga mën a nekk ci biir suturlu fa wala nga nekk ci biir mën faa kerlu kerlu waaye li nga xam ne mooy fondement yi nga xam ne dafa doon ay lu munti ñàkk ci lislaam te mu doon loo xam ne su digganteeg suñ borom suñ digganteeg suñ borom la nga xam ne moom moo ko waral ci ñun taw dinu ko te dina danañu ko laaj bu ëllëgee bi ci njëkk mooy faw dañoo war a gëm suñ borom ci niñ ko war a gëmee nangu itam ne ki nga xam ne moom la yónni ci ñun mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw boobu ñuy taxawal julli ni nga xam ne ni la ko suñ borom santaane di joxe asaka itam ci képp koo xam ne war na la di woor woor koor di aj màkk ci képp koo xam ne mën nga koo taxawe benn yoon rek ci ci sa dund loola nag la ko woon mooy Abdullah ibn Omar moo nett ne dégg na ci yonente bi sallallahu alayhi wa muy wax ne seen diine ji day ñu ngi ko fondement ci juróomi mbir bi ci njëkk mooy nangul suñ nangul suñ borom ci ni ko war a nangule teguwaa teg nangu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itam ci nangu ne ndaw la loo xam ne suñ borom moo ko yabal ci ñun ngir mu xamal nu nan lañ war a jaamoo suñ borom nangu it nangoo taxawe asaka nangoo taxaw itam beeru <coughs> koor <coughs> di di di julli ñu war a jullee di natt asaka niñ ko war a natte nga noppi aj màkka ci képp koo xam ne man nga ko ak weer weeru koor kon jaamu yàlla yi nañ jàpp ci suñ diine ji nañ ragal suñ borom mi nga xam ne bàyyi nañu xel te yëm bàyyi bàyyi xel nga yëmut ci moom suñ digganteeg moom képp waaye dafa wut ay seera yoo xam ne moo dox suñ digganteek moom loola mu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ñu jàpp suñ diine ni nga xam ne ni la ñu ko suñ borom bëggee ñu jàppee ko noonu doon ndax diine mooy diine ji nga xam ne dëppoo na ak bind bi nga xam ne moom la suñ borom bind doomu aadama nga xam ne bàyyi na xel lépp loo xam ne mooy jafe-jafe yu doomu aadama di jaar ak situation yu muy sonn kon nañ ginaaw loolu nag nañuy fàttaliku suñ borom ndax buñ ko fàttalikoo day mu di ñu fàttaliku nañuy sant suñ borom ndax suñ ko santee day mu gën di yokk xéewal yi nga xam ne moom lañu xéewal ginnaaw loolu itam ñu julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne suñ borom moo nu digal ñu julli ci te bam ci bam bam nu ko daatan digal dañoo woon ne moom ak i malaayikaam dañ koo def kon ñu xam ni ko loolu lu rëy rëy la lu mat a bàyyi xel ñun nañu julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa ginnaaw loolu nag ñu tàllal suñu borom suñu loxo di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan mooy borom man lépp bépp bàkkaar boo xam ne def nañ ko yàlla nañu ko jéggal bépp itte boo xam ne jaaxal nañu suñuy pexe xaw na ca munu munu koo sottal yàlla nañu ko suñu borom sottalal moom mi nga xam ne moo mën a sottal ay mbir lépp loo xam ne mooy ak wéradi goo xam ne të tënañ nañu yàlla nag suñ boroom mi nga xam ne mooy mën a saafara saafaral saafaral nu loolee lépp loo xam ne mooy ay bor yoo xam ne dañ ko yor te mu jaaxal nu te xamuñ ni ñu koy fayee yàlla nañ suñ borom dimbale bañ leen koo fay ni nga xam ne ñu ko war a fay ñi nga xam ne ñoonu ñoo fi jóge ñuy ñoo xam suñu jege ñaara moo xam ay bokki jullit la ñu mën a doon ñi ngi ñaan suñ borom itam mu yërëm leen suñ borom mi nga xam ne itam jëpp aajo joo xam ne doomu aadama aajowoo na ko tam doon aajo joo xam ne dëpp ak yiw rek mooy ci jóge doon nay itam lu suñ borom gërëm yal na ko suñ borom jàpp ndal ban faj aajow jooje allah rabbana la tusi xuloo bana bahada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab